moo indi sa motivation ba nga toog ne damay quitter PDS dem créer sama parti boobu. parce que niñ tànnee candidat bi moo ma neexul woon xamoon naa ne candidat bi mënul nekk candidat. mooy Karim Wade. voilà xamoon naa ne mënul nekk candidat. Mm-hmm. kon li ñu bëri naan ay dafa woor bàyyi PDS. man ku ma wax ne dafa woor da wax lu la neex man wooruma kenn.

Le président Macky Sall fait tourner, nous avons monté à la fédération mais renouvellement bu jaar 94 lañ ko def man secrétaire général euh, adjoint la fédération de Gossas Je ma le secrétaire général euh, section communale PDS pour donc depuis 1994 avons un représentant parti nous avons suba euh, am kenn ci responsable parti bi jël téléphone am fédération bu la mu woo diw diw diw réunion bi.

ay nit ne leen yéen yéenay saytu candidature yi joxe délai ba délai ba jeexee ken déposé wul mu ne prorogé na délai yi pour que gars yi mu jël téléphone am di wo ay nit ne leen nekk leen candidat man bokuma ci ñam woo donc xamoon naa fa jëm te xamoon ne candidat bobu mënu la nek candidat parce que nak réew mi dafa am. Euh, lu tax euh, lu tax yow ando ci mom mu nek non anduma ci parce que d'abord amul légitimité bi man suis légitimité bi man dama nekkoon ca jeunesse UJT avant mu nek UJTL il fallait commencer. 1976. groupe étudiant Avant Sandaga. avant non avant eh, groupe balaa ma étudiant élève je suis UJT coordination des cadres je koy créé beaucoup naa ci membre fondateurs yi bokku secrétaire national suis comité directeur donc dama. Euh, dem bokk conseiller municipal en 1996 c'est ca Guinguinéo mhm. nek maire de 2002 à 2014 c'est Guinguinéo nek conseiller régional Fatik nek vice président conseil régional Fatik da membre euh, membre euh, euh, convention régionale bu Fatik donc membre fédération de Gossas donc man dama rampé ci parti bi xaru ba 2000 manan mangi maa di à ay poste li

amna na lu mu ak mom man mom ak yalla miñu tim amna am na lu ñu waxtaan bureau amul cédé duma tok diko wax mom xamna ko bëggoo seetaanee dana xamné kérok bañu togué le euh biñu défé élection premier tour ba le lendemain bañ may jiiñ naan dama wo Macky Sall diko ko félicité ba ma ak mom amna luñu waxanté ci deuxième tour bi gis na sama engagement man ànduma woon ak Macky Sall man su doon man Macky Sall kenn du ko fal premier tour kenn du ko fal deuxième tour président Abdoulaye Wade laa àndaloon Carak biñu gagné biñu gagné euh ma fekk ko këram la ko wax président Abdoulaye euh yow gatché ngalama li nga waroon def def nga ko sénégalais yi ño am liberté choisir président bu len neex tànn nañ Macky Sall mais bu pouvez quitter le pouvoir la tête haute ndax yow rek yaay président bo xamné def nga fi mandat ñaari mandat ben sept ans ben cinq ans bàyyi fi bilan bu ñu tek bëtt kon nak mën nga xol sénégalais la tête haute bàyyi nga fi lo xamné kenn yaakaarul woon ne mën naa am Sénégal. soo ko wax ni que boo boo demee dénk ma parti bi. déedéet suma ko wax loolu. suma laaj dara man ci PDS. lu ma mos a am rek Abdoulaye Wade moo xoo moo ma xool rek xam ne yelloon naa ko mu jox ma ko. mosuma ko laaj parti. lan moo waral lan moo waral choix wu ki nga ne amul légitimité. amul légitimité parce que fi ñu jaar jaaru fa. ndax bu doon affaire yi ndono buur président Abdoulaye Wade du nekk président Sénégal. Njaajaan am na ñu jege président Abdoulaye Wade. Njaajaan Njaay la wax de Bourba Jolof nekkoon barak du Waalo am ñu ko jégué pouvoir mais loolu xewi na 1960 lañ créé république république du affaire ndolo mënon na d'accord bañuy engagé wu ñun biñu ñu nekk mom bokku ca mom 2000 lañ ko gis té taxul won mu bokku ci parti bi dafa créé won benn structure parallèle génération du concret gisoo benn nit bu bokkoon génération du concret bu bokk PDS mais on voyait venir man je sentais venir man nag kenn du wañ sama loxo ne ma da ngay topp diw par force man sam papa ci responsable PS yi dëkkoon nekkoon département de Gossas la woon waaye ba mu PS man PDS laa bokkoon mosul dama ko daan déposé ci réunion politique wu PS taal sa moto dem feneen ba conseil municipal Goss euh, Guinguinéo boobu man maa ngi conseil municipal PS.